président Macky Sall rapport dialogue bi jot na ci. fas yéene koo jébbal su fekkee yaakaar naa sax jox na leen ko démb daal euh, ngir ñu saytu ko xool ko lu jëm nag ci mbiru date bi nee na nekkatul à l'aise pour jàpp dat mi ngi noonu consulté na sax lenn ci ay liggéeykatam daal mi ngi noonu candeelaa ngi noonu ak Sidiki Kaba ak euh, Madior Fall borom xam-xam bu bari bi waaw. maanaam nekkatul à pour jàpp date léegi bàyyi na lépp conseil constitutionnel. Mm-hmm. pour ñoom ñu jàpp date. Mm-hmm. waaw conseil constitutionnel de bu fekkee ne ñoom ñooy jàpp date ah nañ xool rek date bu ñuy jàpp boo xamante ni dinañ mën a dem élection ci jàmm après dem ci jàmm allah li mu nii it na ginnaaw ñëpp nee nañ conseil bi conseil bi. conseil am ko doon jiiñ naan koy tas. Hmm? am na ñu ñu ko doon jiiñ naan daa bëgg a tas conseil. ba tey génn sa. ay ca jàngatal. waaw dama ne ba tey génn sa comme saa nii mu leen ko joxe nii euh, kee nga xamante ni moo ko war a tas ma nga sa liggéey ba. wala boog nga xamante ni am na si xalaat ma nga ca liggéey ba di kii nga xamante mooy procureur bi sëñ Basirou Gueye mi ngi liggéey ñun anañu moom mi ngi gëstu ba xam ñun anañu laa wax sëñ Basirou laa <laughs> dama ne ma ngay gëstu ba xam hmm. euh, lii nga xamante ni tuum ay tuuma yu jóg la am na wala amul hmm. mu seq ñett ñi muy Amadou Ba ak ñaari siisi mu ngi ci liggéey boobu léegi nañ continuer xaar liggéeyam moom it fu muy toll rek waa non man léegi pour nga comp comprendre laa maanaam bu dee tas gi ñu ngi ci yoon wi wala ma nga ci jox na la liggéey bi ni koy tase non xam nga xam nga mbir waaw fii ak yaa ngi def li la war bu lee amee rek du doon sa yoon dut si nekk mais fi ne nii fekkoon defoo li la war bu lee amee dañ naan daa am lu fi la léegi nii laa mais li fii leen di doolee di leen jox liñ moom di leen jox liñ moom bu lee ñëwee ni xis seen kaw dañ naan ah kii kat yoonam nekku si ndax joxoon na liñ moom lépp ah, lu ko mën a tas fi mu mooy kii nga xamante ni mooy sëñ Basiru Gay gëstu ba xam ne lii leen tuumaal dëgg la ak ki leen ki leen ko def dëgg la ah, mu suqi leen topp topp plainte boobu ñaari siis yi ak Amadou Ba bu fekkee am na ñu suqi leen ñu tege leen ne ñu mën a réglé waat affaire bi. yaakaar nga loolu. waaw xaj na fi. xaj na fi li mu ne xaj na fi ñaari fan rek lu na fi. Hmm. Hmm. kon baax na alaaji euh, président Macky delloowaat na responsabilité conseil bi comme la mu waxoon. Hmm. nee daal nekkatul à l'aise ngir di jàpp dab jox na lépp conseil bi. <coughs> waaw nekkatul à jot na nag rapport bi. waaw xam nga Euh, loolu moom euh, mooy jëf kii quoi maanaam xam nga nit léeg-léeg da ngay toog ba ci yàgg nga natt sa bopp nga ne lii de sama cëra waaye am na loo xamante ni bii de jaar na fi dox na naa ko cërale ñeneen ñu ma mooy mm-hmm. loolu nag pour man sax xaw na yeex parce que même woote waxtaan bi waroon na xam ni moom waratula woote waxtaan mhm. euh, dafa waroon a cëral ñeneen mhm. ñu discuter woote waxtaan ci dialogue bi mais pas moom sax moom mu daadee lool maanaam loolu dafa ko waroon a jëlaat cërale ko mhm. waa réew mi moom ne man mii de wax dëgg fa yàlla de mbir yi mënatuma cee wax nii waratuma cee wax daal ginnaaw nag yàlla dogal na man mii maay problème bi maa dugal yëf yi ci guuta léegi nag lépp lu ngeen def man d'accord naa ci mhm. daal di taxawee nële déglu leen waaw maanaam loolu fii mu ko defee dafa xaw a yeex parce que dafa def ba pare mais cee mënatul dara laaj waaw mais dafa dialogue bi moom ci boppam xam nga président Sall bu woote wutoon dialogue doon dialogue bi daf ko cëralewaat askan bi mhm. ne ah yéen ñooñu de léegi xool leen nu ngeen waxtaanee mhm. jàpp leen ko nag nu mu gën a gaawee bu ngeen waxtaanee par lu ngeen tënk man d'accord naa comprendre mhm. bu ko defee ñu jébbal ko conseil constitutionnel. loolu moo gënoon a kii moo gënoon a yenu maanaa que ni nga def ñu dem def seen dialogue ba pare. Mhm. ñu ñëw indi kayit ñu tànnal la ay dat yoo xamante ni bi euh, say date la. Mhm. waaye du datu ñi nga xamante ni bi tey ñoom ñooy candidat yi qualifié. parce que kenn nekku fa woon ca dialogue ba. comprendre nga ñoom li tax nekkuñu fa mooy la nga fa ne moo sabab seen ñàkk faa ne léegi nag ña fa nekkoon tànnal la ab dat mm-hmm. date boobu boo ñëwee jox ko conseil constitutionnel dal ne léegi naa ko bàyyi mu tànn bu date mm. léegi yow dafa mel ni taso yoon nekku ci fekk ne lépp yawa ok waaw comprendre moom comme bu jàppee ñu ni dafay bëgg a toog est li mu def mooy dégager moo tax nag moo tax nag moom loolu ba mu ko xamee mm. moo tax dialogue bii moom da ko war dafa waroon a wax ne kon que yëf yi demee na nii ba man mii nangu naa ni d'accord naa def naa problème léegi nag yéen régler leen yëf yi man maa ngi toog di leen xaar bu ngeen paree ca loola lu ngeen dogal man nangu naa comprendre nga si loolu bu ko defoon pour man euh, jafe-jafe du am quoi mais fi mu toll nii bu demee ba tey jii mu ne moom nekkatul à l'aise pour di joxe bi kañ la nekkatul à l'aise biñ ko dat jàppale datam ba pare ci lay soog a ñàkk à léegi pour jàpp dat ah, det comme yow mi nga nga man mën naa jàpp ni dat bi ñu ko tànnal bëgg na ko waaw kii ma di que ni dat bi du datu datu ah, boppam mais sax yow waxee ni damay dem gars yi génn fee ni ko euh, virgule duñ la ko may maanaam une seconde duñ la ko ngi ci li ñu ne xam nga ñooñu ci li ñu war a nekk ah. lañ nekk hmm. xam nga opposition moom sooy hmm. ci li mu war a nekk rek la ñuy nekk waaw seen taxawaay loolu mooy li nga xam ne nii ñuy taxawee nii lañ war a taxawee comprendre nga mais yow mi nga xamante ne bi yow lañ joxoon réew mi nga am loo xamante ne bi def nga ko hmm. yow dem nga ba rendre compte ni lii leer na ma ni président Macky Sall yëf yi fi mu toll nii bu dee démb doon tey peut-être du ko def te ñii ñoom it waroon nañoo wax ne photo bii nekkuñu ci à l'aise ñan ci ah kay Ismaïla Madior ak euh, Thiendella Sidiki ak Thiendella non sax moom mën nañ koo kiyagu justice ministre de la justice waaw mais Sidiki moom non Sidiki mën nañ koo kiyagu quoi moom mais Thiendella mais mais mais xam nga ñaar ñii ñoom dafa Thiendella moo nekk DG DG waaw waaw gis nga Thiendella décision ñaari décision de justice yoo xamante ne bi wadd na moom Thiendella lam ca waroon a doxal nit ñi doon ko ca xaar mu doxalee nee nañu kat boobu alaaj la Madior ak boroom contimaas moom mi yor contimaas di ko wëndeel ba mujj xaw <laughs> nekkuñu à l'aise ñoom <laughs> nekkuñu à ah, boobu war waruñu war a nekk à ci photo bi hmm. photo bi day wax dëgg fa yàlla ah bon man de bu bu ma doon bu ma doon ñoom du ma portale de doo portale du ma portale d'accord du ma xam nga aka neexoon nag ñiy joxe décision dialogue bi ñu éliminer woon ñii ñu joxe ko ñeneen ñëw joxe ko. Hmm. personnage yi quoi man pour man personnage yi baaxul ñi ñëw di joxe ñi joxe décision bi quoi. Hmm. kii bi kii bi waaw. Hmm. donte nag ñoom mënoon nañoo nekk sax ca photo ba mais waruñu woon a nekk kii yi. wala comprendre loolu joxe lañ waxtaanee. mënoon na am ñeneen ñoo xam ne ñooy symboliser mbir mi. mais xam nga lii ba léegi da ngay gis ni. Euh, ay nit yoo xamante ni bii ay nitam lañ ñoom ñoo toogawaat ñoom ñoo indiwaat décision ju waxtaan maanaam dangay gis ni lépp rek lenn li la. d'accord comprendre moo tax photo bi man su ma doon moom dama naan ko photo bi bu ñu ko defee nii quoi. Hmm. nañu woo ñi nga xamante ni bii sax ci commission ba ñeneen nit ñoo xamante ni bii. tey gis nañ ñi ñii kat ñu. féetewut fenn lañ ñuy joxe seen xalaat lañ mais ñii dañuy jàpp rek ni xalaatu hmm. euh, président moom moo ñëwaat parce que ñii ñëpp mosuñoo wuteeg président xalaat ñoom bu ñu ñëwaatee indi kayit gi day firndeel rek ne un plus un égale deux cinquante cinquante hmm. cinquante non cinquante cinquante amu fi kii cent yi kañ kenn ku jàpp <laughs> cinquante cinquante amu fi ñu daje ñëpp ñoom benn lañ kuñ ko seet ñëwoo ñu daje ñëpp benn lañ ñoom ah? ñoom cinquante cinquante ñoom ñoom i neen la daal ñoom seen ñoom i neen la